Mouhamadou Lo euh, yow ngay euh, cadre Pastef euh, jege lool kii di Ousmane Sonko démb ñu nommé ko premier ministre. gis nga discours bi mu tenir mais déjà bu ñu taxawee ci poste bi nomination bi bi nga ko déggee dem bett na la bettu la qu'est-ce que ça t'a fait. sincèrement man bettu ma tax bettu mooy parce que duñ def l'homme qu'il faut la place qu'il faut xam nga Sénégal toll foo xamante ni il faut que nit ñi dellusiwaat ñuy waxante dëgg te yàlla tax parce que Sonko xeex maanaam Sénégal tey liberté bu leba bu Sénégal am ni loxo mi si biir comment former un gouvernement nit jàpp rey def si rey si boppam def suñu ne xam lo pour projet bi am pour projet bi mën aboutir mu ñëw ñuy fal pour mu mu diriger projet bi ñu ko déedéet yow yow waroo bokk xam la xañ boppam te ak a mënoon bokk nag ak mënoon bokk mais dafa xañ boppam pour jëlee kenn xam nga nit day am grandeur yi nga ni fa am grandeur domaat day am grandeur te grandeur boobu noonu Ousmane Sonko wane ñëw di doxal gouvernement bi ñëw pour doxal gouvernement bi pour doxal projet bi ndax kenn gënu ko miin projet boobu kenn gënu ko xam mm, état état état état Sénégal guñ toll. Mhm. na leen du bu tax boobu ba léegi muy nekk ak ñoom bëtti bëtti bëtti bi xam la mhm. fu nekk ñu mhm. A à Z. ñun dul ñëw fii pour def rupture. rupture bu mu wax noonu. kon jàpp ne ni mu xamee tamit état xamoon ñi fi nekkoon. ak euh, ni mu maîtriser projet bi bokk na ci choix yi nga xamante ni moo moo ko moo waral tey ji Diomaye porté ko wala ndax tout simplement ni mu porté combat bi euh, sursoir ay ay ambition am jiital ci lu moom moo ko waral. non non non c'est tout tout loin de que am na ñu jàpp ni peut-être. loin de là nga jox pour pour non sonn nga si boobu léegi yow déedéet déedéet. dama la def du nga ko la l'homme qu'il du jàpp ni fii moom moo foo toog moo fu mën a toog yuñ toll. li Sénégal soxla te instant yi Ousmane Sonko rek moo ko mën apporter moo ko mën apporter Sénégal du keneen. mais ndax mënuñu koon def lu mel ni comme lañ jox Mary Teuw Niane def ko directeur de cabinet parce que directeur de cabinet bi. Euh, mm. moom euh, dina teewee lépp dina xam li nga xamante ni moom mooy nekk en cours. maanaam mm. sax am na ñu jàpp ni sax directeur de cabinet bi mooy poste bu gën a stratégie sax nga xamante ni moom mooy poste de premier ministre. waaw mais mooy mooy euh, le la république toogee pale ne être à mooy nga toog xool man kii laa bëgg a liggéeyal fii saa compé say compétence fii la lii la lii la lii la xam ni kii doy na ma teg fa doo xool ndax sama xarit la doo xool ndax mbokk la doo xool ndax ah, ndax defaloon na ma lii wala tëjoon nañu ko bi dama ko war fay. neex daal. du poste yaamu neex poste yaamu neex moom mu jëlee fii te di nga xam dara li ma wax nii di nga xam dara après les postes direction ñu ngi ñëw. oui ah lan la wax appel d'offre mosoo ko dégg Sénégal. mosoo dégg Sénégal ñu appel d'offre ñu ngi fal direction appel d'offre mosoo ko dégg te di nga ko dégg à venir. appel à candidature. ah appel à appel non candidat appel à candidature la. waaw mais appel rek waxal non. grave dama lay corriger un peu waxal appel a nga tu ma a la la du poste boo xam dama lay compétence laa la fa tegee. Mhm. compétence lu ñu teg ñu lii mais lu yàq Sénégal loolu la kii sama mbokk dama koy jël kii man moom àndoo xëy dama koy jël xamoo li nga koy jox li nga koy jox kon rupture bi Adama Fall wax léegi ni moom gëmu ko parce que déjà jalon yi ngeen posé annoncé leen la rupture yow yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy weddi non ba rupture bi am na ban jalon loolu loolu jàpp na ni ku mel ni Mary Teuw Niane ba nekkoon ca système ba. mais Mary Teuw Niane Mary Teuw Niane il a les xam nga pour li ko jox mu doxal ko. li nga ko jox xam nañ ko ñoom xam nga problème sooy sooy sooy sooy fàttali que ni xul mës na mës na jàppan nga ni ko non naa feqal ni xam la la boole woon xam la day xool cause bu leen boole ak la moo tax ñu lox. c'est vrai que xam la nit mën tey nit nit mën tey mën na mën mën ko accuser dara nga def ma ñu seq ñu am problème nga nga nga nga wax ma. nga accuser benn non ni ma ni ma naa feq exemple la mot xam la mais soo ma ko waxee fekk man tey. Euh, ku lox li li nga may jiin def ma ko fekk sa sa kilifa gi mag gi ñoom seen seen seen seen président ma ko def ma dara. Mm-hmm. Ah, ah maam naa fekk bu ñu ko waxoon rek war na ko fal déedéet. Mm-hmm. mais moom mën a juum sax Diomaye mën a juum nit la. mën na ne naa fekk mu bi xam ni mu wax Mm. souvent di nit la nit nit da tooñ nit non dama exemple petit type bi mu ko tuddee woon non petit type non moom loolu ñu remet pas ki am loolu si dégg nga si xoolal si wax ngeen mag wax ngeen Ablaye lu ne daf lu mu wax daf ko ne au que xam lo dama ne ba pare teg ci ko la naafeqisme personnalisé non lu mu ko teg dama lu mu ko mën a mu lo loolu dama la context bu ko waxee woon loolu. xam nga loolu tax kon yow accepté nga nit. toll ci contexte mën ñu quoi. déedéet du tout wax ma loolu de dama nit mën nga juum tooñ. loolu laa je suis très clair. Ah, kon dafa tooñoon. déedéet wax ma loolu de ba léegi dama yow yaa bëgg a wax dama parce que taxaw ni. carrément ni waroon noonu fal météo ñaan parce que su nga fal day mel ni tey rupture amul. mais ki ko xas moo ko. xam la mais ki nga xas tey mais man dem la wax sëñ bi. ki ko saaga li mu la wax sëñ bi c'est-à-dire daf ko saaga. loolu loolu du deñ. yéen taxaw ngeen seen biir AP taxaw ngeen ngeen wax Macky Sall mii nga xam yéen a moom de tous les noms d'oiseaux. seen biir waaw dama leen nag loolu mooy lii nag ñun ñoo ko jeexal. loolu ñun ñoo ko jeexal mais du nii du nii lay jeexee am tax du nii lay jeexee. Hmm. parce que ni ngeen déparé baaxul. nuñ nga soo opposé wu da nit def na lu jaadu nga lii jaaduwul. waaw loolu kay jaaduwul mais ñun defaguñu. lii jaaduwul lii am ah, kay. déedéet ñu on ne poite gu ma def ne lu ne rek dara. yéen da ngeen jël lu ne rek. ki nga xam ni moo nekkoon géwélu Macky Sall. looy de la di ko tagg naan ko Macky Sall ka moo jox Macky Sall ka nangam. Macky Sall ka nangam ngeen taxaw. xas leen saaga leen ngeen wëlbat ko fayu. li amoon Sénégal teg ko nangam sangam ñëw ngeen def ko directeur de cabinet. Sénégal loolu remarqué ba jëlee leen fi xam nga. tàmbali tàmbali bi de baaxul non dama non de mais euh, euh, seetaan dàq ndaje saa yi. tàmbali bi de baaxul seetaan mu dàq ndaje. xam nga ne bëri nga saaga moom saa yàkkamti xeer la. non saa yoon def mooy. tekk tekkaat tekk woon la yoon. waaw mais ni ngeen départ nii. non man maa ko déparé. keneen déparé ko man non non de Pastef damay damay wax Pastef wax sama mouvement lu politique damay tax may wax sama bopp. tey tax may defal Ousmane Sonko defal Ousmane Sonko dafa bëgg defal Ousmane Sonko xam nga li mu ko defaan defaan tey am naa ngoro tey su defu deful ma tax maa njëkk taxaw naa li li jaarul ànduma si ma ànduma kenn de tàppante à loolu ànduma ànd ànd tàppante ak kenn mën naa la laaj oui da nga jàpp ne Ngouda Mboup ne peut pas être directeur de cabinet man may laaj fii non Ngouda Ngouda Mboup pouvait être directeur de cabinet non mais comme dama lay fàttali tuuti rek waaw yaay laaj man may laaj doxalal no li wax ni comme ay diw mën nekk directeur de cabinet y' a 1000 personnes qui mais pourquoi lui. 1000 fonctions mais parce que moom la moom moom la wóolu. non gâteau bi la. moom la wóolu non gâteau yaa yéen a fi amul séddale yéen yéen est ce fi dara bu ñu séddale <laughs> est ce que bàyyi fi dara bu ñu séddale xam nga dara yéen instant ñun ñoo war wax yéen am toog ti toog yoo toog war toog leen taxaw non instant yi war leen toog war leen taxaw parce que xamagul leen fi bàyyi leen bàyyiwul tranquille ñun kay ñun instant yi ñun ñoo xamagul te lépp day leer ñun suñu kàddu dama ko jude lépp day leer non ñun suñu kàddu ñun suñu kàddu dama ko ñu adama xool adama adama tàmbaleegul billaay tàmbaleegul euh, maam jub jubal Mohamed suñu kàddu waaw dabaguñu waaw président de bi ñu fal. non dabati leen kay. non dama ne ba ñu demee opposition ba léegi suñu kàddu dabul dama président de la République bi ngeen fal. opposition tey tey tey tey tey la République bi ñu fal. waaw le deux mu prêter serment le deux. ay kàddoom dab nañ ko. mooy président bi ñu njëkk vaar ci Sénégal. façon moom moo. loolu dëgg c'est le moom la njëkk vaar. maa ngi ñëwaat ci moom moo traité woon nit ki de petit moo ko fal directeur le maa ngi ñëwaat ci yow rapidement alors fi nga taxaw na am na solo mais à rappeler que ni démb également yaa ngi teewoon foofee ca euh, salle ba bi kii di Bassirou Diomaye fay di prêter serment. Hmm. Ah, ndax mun nga ñëwaat euh, rapidement ci démb naka nga dundee boobu boobule boobule boobule cérémonie ak loo fa gis lu nga xamante ni peut-être mun nga ko baaxee suñu internet yi. Euh, démb la mu fa gis dam sama yoon dafa daw parce que am na ay ja ay affaires yu amoon Sénégal dañ nit gaañu si. ay nit ñàkk seen bakkan tey président yow départ goo sax ngay fàttali ni yow loolu nga met nga nga xëy metti lu xam la maanaam wane ni vraiment lo lo lo lu la tient à cœur loo xamante ni bëggutoo bëggutoo mu amaat Sénégal lu amoon Sénégal noonu loolu daf ko metti ba xam si discours am si ma jàng discours am j'ai vu un Diomaye ba nga xamante ni sincèrement très correct très posé tere poli di nga yar lu mu la mayu si àdduna ko xaj ñu lu noonu waxal yaradiku ah mën lii mën lii on a vu le contraire chez Diomaye on a vu on a un président très poli très correct très serein discours boo xamante ni mën naa ne loolu xadis la discours ba mu def noonu nit mën na si bind nit mën na si yar doomam nit mën si yar kër deful lépp ba ba ba ba ba ba kii ba ba atteindre objectif maanaam nu mu départ dafa leer nañ mu déparé encore le cour le kii waa waa cour constitutionnel bu bu nga ñëwee du nga ko lu nga ko lu Kéba Mbaye defoon lu ko def du nga ko yedd mu dégg yedd bi yedd bu nga ko yedd daf ko dégg xam ni dama da nga am nopp doo dégg mais daf ko dégg moo tax mu sentir lu mu wax dégg bu nga dégg mooy xam na ni tey bis bu nga ko falee noonu ba ko jox lenge mi ngi fàttaliku jour mi génn palais. mi ngi fàttaliku bis nit dina ñëw toog fu mu taxaw fii def discours bi mu def war ko remplacer te day am ala kulli aal mënut a ñàkk. gis naa ci saal bi ay Sénégal yëngu na daal xam naa ne. xam loo l' émotion bi loolu rek la. parce que dafa kenn xaaru ko man mi xaaru ma ko foofu man maanaam xaar discours kilométrique dox wu xam la mais fast track la def. wala ni kat mais démb également nit ñi dañoo gis benn jomaay bu bu bu ñàngal sax parce que kanam gi loolu. non pas ñàngal dafa dafa xam li ngay xaar dafa xam li mu yor lan la Sénégal du foo dafa xam lu mu yor du foo du foo ay ay reetaan ak ay ay kii ay yooyu yooyu yooyu moom yooyu moom moo si. yoru réew xam nga yoru réew dëggu jubal dëggal. d'accord. alors Guèye Para rapidement nga nga. yaa gaa ngi gaa yi ngi xëccoo poste yi nee nañ. <laughs> <laughs> Eh, non non non eh, mi ngi wàcc eh, je t'assure. pourquoi ah. que coow dafa bari. ñu wax nu heure on n'a pas donné d'heure. non non non li dafa ah, du ñu joxe heure. du ñu joxe numéro décret. du hmm. ñu joxe numéro décret. du ñu joxe joxe numéro boo amul. moom la ñuy xaar mais euh, xëccoo daf ci am a légitime ak ah, ay non non fii bu nga xam ne xew foofu non grand non ah. lii la xam ni nga posé baaxul ni nga posé ah. baaxul grand ni nga posé baaxul inchallah dinañ leen ko dinañ <laughs> maa ngi woon ak yow ci gis-gis ci fii euh, euh, violo daanele par rapport ak démb cérémonie de prestation de serment bi ak it nomination Ousmane Sonko comme PM Marie Taw Niane en tant que directeur de cabinet jàngat naa loo xamante ne tey le cas de Pastef en principe doit être euh, enseigné en sciences politiques vu leur histoire mm-hmm. vu leur cursus fi ñu débuté ba nañu jaar ba accéder au pouvoir defe naa ne doy na sëkk pour à ce que ñu jàngat ci ne il faut oser mm. et mm-hmm. euh, nit lu mu gëmul doo ko mës a te dafa am ay jalons yu ñu teg yoo xam ne man dafa ma neex trop ñoom woowu kenn ci financement walla xaalis pour ñu voter leen. Hmm. dans l'histoire du Sénégal je pense que man sengoor ba léegi Adama du ma bàyyi ma fen ah, li fi daan am bu parti politique nekkaan opposition dana fexe.